tëngéej dëkk la boo xamante ni jeunes yi yu bari dañu jàng am seen i diplôme ñi jàngul am seen diplôme sax am nañu métier te mën nañoo liggéey waaye souvent accompagnement bi mooy manqué moo ñu ne pour daw xale yi xëyu xale yi lan lañ ci am dañuy def dañuy distinguer emploi salarié ak emploi non salarié emploi salarié mooy ngay liggéey ñu jox la sa salaire am salaire waaye am na xale yoo xam ne bëgguñu salaire ah ñoom am nañu benn expertise ak compétence xarañ boo xamante ne mën nañu liggéey seen liggéey am seen auto emploi di di gérer seen bopp pour emploi salarié dafa am aujourd'hui ay possibilités yu bare bare bare bare yu am au niveau de l'État du Sénégal heureusement qu'on a le ministre du travail Samba ici dans le cadre du ministère du travail ministère de l'emploi de la formation professionnelle yu bari yoo xamante ni président Macky Sall daf ko jagleel xale yi mais xale yi amuñu information yi loolu moo tax li ñuy njëkk a def mooy encadrer xale yi accompagner leen ba nga xamante ni possibilité yooyu am au niveau de l' état dinañ leen dinañ ci mën a capter suñu demee ak yeneen xale ñoom dinañu am information yépp yi nga xamante ni peut être ci yeneen gox yi xale yi amuñu ko forcément ñun dañ leen renforcer seen capacité. dañu renforcer aussi le plaidoyer au niveau de l' état.

on a presque 130 000 électeurs.